alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax baax baax ñu ngi nuyu ñëpp ci ci turu sang bi ndax amuñ fi amuñ fi kàddu kon ci kàddu sang bi la ñuy waxee rek ngi nuyu ñëpp di siyaare di ndokel ñep ci bës bi sof suñu kaddu ci kaddu yi ah, Seyna Jibril bi mo rafet lool nga xamni ñun lool rek lañu fédali ci sang bi ñu lay xiar di la bëggee bu baaxa baaxa baaxa baax ñu yaakar na ñaari ñaari tank lañ fi ñëwé tànk bi jiitu mooy dañu fay ñëwee tànk suñu sang ki ñu dimbale ci yàlla muy Cheikh Jaraaf ñaan nga xam ne maqaamaam lañ fi ñëwee cëram lañ fi ñëwee liggéeyam lañ fi ñëwee ñu la ciy ndokkeel bu baax di la ci sant bu baax a baax a baax a baax ndax mooy sunu baay ci yàlla te yaa ko dimbale ci yàlla beneen bi mooy sunu tànk kóllëre bopp sunu diggante ak yow muy cofeel goo xam ne nii moom lañ feddali si yàlla dogal ko sunu diggante ak yow cofeel goo xam ne yàlla rek moo ko lal te yàlla rek lañ koy seedeel yàlla rek lañ koy seedeel cofeel gu doy waar gu yéeme gu ñu mënta décrire ci kàddu loolu la dogal dañ koy feddali rek dañ la koy feddali rek pour nga yëg bu wér ne li ñuy wax mbëggeel fi mu yem foofee dañ tàmbalee ci yow ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi lool ñu ngi ñaan yàlla dolliwaat ci li maye liggéey bi nga xam ne Cheikh Moussa bëgg na ko jamono namm ko ci jaam ñi te nga ciy gaynde piir jamono yëpp seede ko yàlla suñu borom gën a barkeel yàlla suñu borom gën a yaatal ba lim namoon ci àddina bi moom Cheikh Moussa te mooy jaam ñëpp mucc te mooy jaam ñëpp texe yàlla matale liggéey boobu noonu sa keppaar ñu koy dagaan ci daraja yi suñu sang ba tëddee Cheikh di jégalu ci kàddu yi bu wér sang bi ñu ngi yees baax a baax a baax a baax.